بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلدي سن بوك حبيبي جوب منصر صالح موين يوتا زيارة أمرك أي كادو يمبغى وخاك خلات يجمت خيو خيو بينغا خمني مو خيو tey mbas moo xam ne sunu borom moo ko wàcce ci àdduna bi te kenn mënu ko fay jëlee ku dul moom nu war a dellu ci moom dellu goo xamante ne gii du ànd ak déng-déng du ànd ak eh, caaxaan du ànd ak ñàkk a sellal waaye dañuy wëlbati ku dëmmal tàllal ko sunuy loxo yoo xoondoo eh, waaye balaa loolu nag noo ngi félicité Euh, état bi président de la république ak jéego yi nga xam ni moom lay dox ci mbir mi te muy am solo lool ñu ko ci félicité di félicité euh, docteur yi sunu docteur yi ak ñi nga xam ne ñoo ko ci dimbali ñëpp jàmbaar lañu lool euh, décision yi ñu jël yëpp yu am solo la lu baax la ci mbir mi tasaare gi ñuy tasaare ndaje yi. lu am solo la lu ko mat la moom rek rek rek mooy li nga xam ni mooy mooy wàccaay bi nga xam ni bokk na ci li nga xam ni mënta ñàkk kon donc si félicité bu baax a baax a baax euh, benn benn euh, décision rek mooy ba nga xam ni jàpp naa man ni ci sama xalaat mat naa defaat ay taxaw seetlu muy tëj jàkka yi te jàkka mooy dernière solution ndax jàkka palaasu ñaanukaay la nit ñi bu ñu dajee ci jàkka ji julli ba noppi ilimaan joxe ay dok na nañ ko ñaan bak jàpp jàkk yëpp di ko def waxtu wu ne léegi sunu borom wuyunu te manees na ko boole koog waajtaay woo xam ni ak prévoir boo xam ni dana tax ba mbir mi du fa dugg waaye mboolem jullit daje di ñaan loolu cosaan la loo xamante ne lii moo mën a yëkkati balaa bu mel nii ba tax na man ci sama xalaat jàpp naa ne bàyyi woon jàkka yi ñuy julli te ñu organiser ko nañu koy organiser mooy la ñuy njëkkee mooy tere jigéen ñi ak gone yi ne bu ñu demee ci jàkka yi buñ ko siiwalee waxtaanee ko teel ko waxtaanee ko wax ko wax ko ca kaw ñëpp dégg ko état bi taxaw ci police yi taxaw ci jigéen ñeeg gone yi bañ ndax jigéen ñeeg gone yi daanaka ñooy génn wàllu ñuy dem ci jàkka yi jumaa yi jumaa joo fi dem. gone ya ak jigéen ñi dëgg la jigéen ñi bokkuñu góor ña fu ñuy julee waaye jigéen ñen mbooloo la ñuy doon te luñ fa jëlee kër ga lañ koy yóbbu te jumaa warul leen gone yi itam dañuy bari raxal laaxaloo ci biir mag ñi dug ci biir te gone jumaa warul leen kon nag ñooñu nga xam ne jumaa warul leen nañ leen njëkk a isolé ba noppi ne jigéen bu mu demee ci jàkka jumaa ba jumaa jàkk kii gone bu mu fa demeti bu ko defee li mag ñi nga xam ne ñoo ci des ñoo xamal leen ni képp koo xamante ni kii yaa ngi sëqat wala ngay soj wala ngay dara sa kanam boo demee ci jàkka ja bàkkaar nga fay jële waaye doo fay jële jaamu yàlla ndax ku ku ku ku soj képp di sëqat waroo dem ca jumaa ja ku soj képp di sëqat nga xam ne am soj dong la di sëqat sëqat ga xoox xooxi waroo dem ca jumaa ja di fa tisleeka ak ak sëqat muy dal ci kaw nit ña kon bu fekkee da ngay jaamu yàlla rek nga yëg ni bàkkaar nga fay jële ji waaye doo fa jële jaamu yàlla kon toogal ba sam soj wér loolu bu loolu noppee ba noppi nag ñu ay nit ci buntu jumaa yi ñi nga xam ne ja jumaa jaamu jàkk jumaa joo gis am na am na am na commission boo xam ne ñooy toppatoo jàkka ja ñooy toppatoo jumaa ja ñu fa raxa waajtaay yi nga xam ne moom la ñu raxasu ko ay sel yi ñuy pompe yi ñuy pompe yooyu yëpp jàkka ju mu ci doon am na ñu fay nekk ñoo xamante ni ñi buñ leen buñ ko siiwalee ñu jënd ko andi bu ko defee ñu teg ay nit ca buntu jumaa ja ñu ñu ñu ak ñeneen ñu nekk ci biir di organiser nga xam ne dañ fexe ba soree leen nit ñi ñu xamal leen fekkit sensibilisation bi bokk na ci ñu di leen wax ne bu ñu sësaloo bu ñu sësaloo ñu di ko wax ci kaw ñëpp yi dégg bu ñu sësaloo bu ñu sësaloo bu kenn sësoog sa morom ñu sa ku ne dana daan dan sàppe su ne ku ne dana daan danteeg sa morom mètre ñaari sàpp sàppe su ne daan danteeg morom sàppe ñaari mètre mu yaraaxa yaraaxa yaraax lu dugg ci jumaa ji lu mu doy lu mu néew néew doy ñu bàyyi leen ñu julli ñu ca des ñu leen julli leen ci biir saa so doyee ñu ci bitti na doy na loolu lu mën a am la li maanaam liy tëj jumaa yi ak jàkka yi màkka mii ñu ci bëgg roy màkka du ci royukaay ndax màkka day benn barab boo xamante ne bi àddina bépp fa la ñuy jëm te it am na lu ñu fay defee loo xamante ne li foofa dong lañ ko mën a defee te ci benn barab dong lañ ko mën a defee nga xam ne àddina bépp përir jëm fa foofa kenn mënu faa def benn solution bu du neñ ko def mooy tëj waaye suñ jumaa yeeg suñ jàkka yi nga xam ni yaraax na ba noppi nga xam ne jenn jumaa fee satut te jumaa ju mu ju mu ci doon dina ab koñ dong la concerné yooyu jumaa doom yomb naa lijjanti ci wudul ñu dul ko tëj nañu organisé waat yëf yi teg ko ci yoon woo xamante ni bii bii ma wax ni muy yoon woo xamante ni buñ ko defee ñenn ñu ne mën nañoo toppatoo seen jumaa taxaw ci gone duutu fa jaar jigéen duutu fa jaar taxaw ci bala ngaa dugg raxas ñu pompale sel say loxo taxaw ci sàppee yaraax ci biir te soree fu mu doyee ñu ub jàkk ji imaam gaaw julli ñu daal di joxe ñaan joxe ñaan ñu ñaan kenn ku ne dem te ñaan yi ëpp naa xeeb ndax mbooloom jàkka mbooloo mu daje ci jàkka ñu joxe ab dog kenn ku nekk ñu la def ci nangam ñu def ci nangam laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin ñaan la go wax ni moo génne woon yonent yàlla yunus ci jën wa ba ko moo tabbee ca ndox ma jën wa ko dem ba ca taatu géej gi mu ni fa nemm nga xam ne mënoon naa mu wurloon am ay seconde ci biir te dewut ca biir la nekk na laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ba jën wa génnaat ci biti yëq gëq ko doo yàkkamti nag ndax waxu ko rek mu génne ko waaye am na ci ab diir waaye yàkkamtiwul ñànkiwul daf caa nekk ba sunu borom génne ko ca te deewul kon ñaan la goo xamante ni borom xam-xam yëpp maase nañ ci ne ku nekk ci jafe-jafe di ko wax sunu borom génne la ca man maa waat ni jumaa yi bu fekkente ne yëpp bàyyi nañ julli bu fajaree ñu do imaam joxe ci dog ñu def ko bu fa bu tisbaaree ñu def ko bu takkusaan ñu def ko bu timisee ñu def ko bu gee ñu def ko jàkk yëpp maasa ji wallahi alazim léegi sunu borom génne na ci mbir mi moo gën tasaare nit ñi kenn du ñaan sunu borom nee na wa zannuuni borom jën wa mu yonent yàlla yunus iz zahaba mugaadiban fa zanna an lan naqdir alayhi fa naada fi zulumati an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin nee na ba mu ko waxee fastajabna lahu wa najaynaahu min algammi te it wa kadalika nunji almuminin kon nañu xam ne loolu du caaxaan suñu ko defee sunu borom mën nañu ci génne bu gaaw a gaaw a gaaw te moo gën te nit ñi na ñu seetaan mbir mi bàyyi jàkkee jumaa yi ñuy julli te ñu organiser ko noonu ba noppi te ñëpp imaam yëpp di joxe jokk ñu ñuy naam bu ñu ko defee incha allahu taala suñu borom dinañu ci génne loolu daal man mooy sama xalaat boo xam ni jàpp naa ne def ko mu gën ne nañ ub jumaa yi nit ñu dem toogi ba jumaa place ñaanukaay la place ñaanukaay kenn du ko tere nit ña place jaamukaay la place ñaanukaay la kon nañ bàyyi nit ñu dem ci jàkka yi dem ci jumaa yi ñaani te ñu organisé bu fa gënee bu jigéen dox bu fa gone dox te ñu toog ci biir nit ñu ñu ñu ñu prévention yi ñu def yëpp ñu taxaw ci temm ndax nit ñi fi mu ne ñëpp dégg nañ mbir mi te xam nañ ni mu garaawee ba luñ leen ci wax danañ ko def luñ leen ci wax danañ ko def nit ñi seen bopp nangu nañu lépp fii na luñ leen ci wax danañ ko def kon nag man daal gis naa ni bàyyi ni dem ci jàkkee jumaa yi te ñëpp maase ci tàllal sunu borom sunu borom sunu loxo ñaan defe naa moo gën وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بك أيوب وخي تبلام فاستجبنا له ولا تسمع برام وخ kon nag nan ñaan yooyu nan ko jël nan ko jël di ko di ko di ko jëfandikoo di ko jox ay dog nit ñi di ko di ko jëfandikoo surtout ñaan yooyu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ku julli yow dong bon pe def ci dog boo nekk sëb nekk dinaa fi la boo noppee def ci dog rabbi inni masani yadurru wa anta arhamu rahimina dog boo mën nga def ko ca ñu tàllal te te ànd ak teewlu ànd ak ànd ànd ak pas-pas ànd ak sellal ñu tàllal suñu borom loxo suñu borom suñu loxo mu ñaan ñaan ko mu may nu mbir mi ñaan rek nu ci mën a génne dara mën na ci génne ñu ne ëpp doole gis ngeen ni muy màgg ci réew yi màgg boo xam ne jéggi na dayo yàlla bu mu agsi ci noonu waaye bu agsi ci noonu àddina tukki ndax mënuñu mënuñu ci dara waaye yàlla bu mu agsi ci noonu loolu nag ñaan rek moo ñu ci mën a musal du ay privation du dara privation yi nag baax na ndax jullit day boole ñaan ak sabablu ñaan ak sabablu waaye nag dëgëral sabablu wayefal ñaan loolu de ëpp naa def te it dafa mel ne ñu bari ci nit ñi dafa dafa mel ne dañoo bëgg jëm ci loolu dëgëral sabablu yi rek wayefal ñaan yi te saare nit ñi dégg naa ñuy sabab ñuy ñuy ñuy joxe ay ñaan ci whatsapp yi yooyu sax dégg naa ñu koy wayefal naan wax lii ku gis lii nangam ak nangam mel ne lu ko wayefal toll toy loolu ëpp naa def ku joxe ñaan boo mënee defal boo mënul bul xeeb ndax xamoo fu mu ko jëlee xamoo nu mu demee te yàlla ku ne la mën a wuyu benn baat képp yàlla mën na cee wuyu nit benn baat mën nga cee wax yaa mën ko wax suñu borom wuyu la kon nag ki joxe ñaan boo mënee defal boo mënul baal bul bul ko saboté bul ko fal te nit ñi dañoo bëgg a woyafal ñaan nan boole sabablu ak ñaan ñaan moo gën ci mooy mooy ngànnaaru julit adduaa u silaaxul mumin la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax comme ñun am nan ngànnaay nanu daje nanu nañu daje te organisé wu tey ñaan man daal loolu moo ci sama xalaat naa nag képp koo xamante ni kii jot nga ci audio bi bu juboo fi yow bu juboo fi yow nga jàllale ko jox ko keneen bu jubul fi yow faral bëgg bu ci président jotoon sax bëgg naa même bu ma mënoon a jot président man dana bu ma mënoon a jàkkaarloom dana ko wax lii ma wax ndax samay xalaat dong la te wóor na ma ne am na njëriñ waaw kon nag képp koo xamante ne gis nga ko te jub ci yow koo ko mën a jox jox ko ko su jubul ci yow nag faral wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh